da ci fekk sëriñ bi jaar jaar ci sëriñ bi li ñu wax ci biographie ci tubaab nga xam ne bi sëriñ bi gane àdduna ba nim ñu làqoo nett li na ko ci nett nett lii bu simple bu leer boo xam ne da ngay xam li ci nekk li ci nekk lépp taxaw na tam ci bi nga xam ne fi mën nañu wax ni tarbiya c'est méthode éducative si suñu seex indi na ko fekk koo mu bokkaloon jamono moo xam ñi sosoo ci réew mi moo xam nga xam ne dañ fay ñëwoon loolu lépp sëriñ bi indi na ko ci ci ci téere bi nettali na demu Gabon gi ba mu ñibbisee déportation bi ñu ko yóbbu ci Mauritanie jóge ca résidence surveillée bi ñu ko defoon ci yéen Jolof jóge ca résidence surveillée bi nga xam ne mu la mujjee ci ci njaareem ba ni sëriñ bi wuy jee borom loolu lépp sëriñ Cheikh indi na ko te ci nekk du ñëw ci li ñuy wax histoire waaye bi day day day jàngalee yi nga xam ne day ne ci yoon wi ni sëriñ bi di jàngalee ni muy tarbiya ni ñu mën a jàngee ci ci natt a ñu ko doon teg yooyu yëpp sëriñ Cheikh da koy indiwaale ci téere nga xam ne da ngay xam ne sax fi sëriñ bi jaar da nga koy xam lañ ca mën a jàngee tam ci ay leçon lépp da nga koy da nga koy xam kon nag tey ñu ñoo xam ne képp ku gëstu ci sëriñ bi mënoo ko ñàkk yéen ndax ko waxee rek sëriñ bi mu ngi ci ak liggéeyam mu ngi ci ak njàngaleem mu ngi ci defaree taal bi defar nit ba nga xam ne foo jógee defar bi defar ñu nag loolu ñu continuer ba tey suñu yoon tey jii républicaine mun ñu tëj itam ñu xëy na wala ñu tëj ñu téere bi sëriñ bi bi ñu ko bindee ci arab ba noppi dañ ko tekki nañ tekki ko ci français bi ñu ko tekkee ko ci anglais te ñu ngi wax yoo xam ne yi international nga xam ne kon téere bi ñu ko tax a ñëw dëgg dëgg dëgg mooy mën a adressé képp koo xam ne kii ku bëgg xam sëriñ bi wala ku bëgg lu baax la wala ak jullit ba te téere boo ko defee ci laa ko war a kii rek ñoom ñu koy ñu koy ñu koy ñu suñu baax yi waaw kii ci mujj nag te ëpp ci solo itam nag ci sama gis mooy téere ba ñu ngi koy bëgg a soxali li ñuy wax manuel scolaire manuel scolaire ko defee mu ne kii ñaar nga war a def moom lay na ci bopp bi yaa ko koy melal ni mu war a mel ko jëfandikoo loolu sëñ Ba ci liggéey ba fi mu toll nii nii ba mu ay école yoo xam ne ñu ngi koy jëfandikoo te bu ñu ci kanam daanaka a yegg yëpp dafa yegg kon daal ci kattan xam naa dama koy soxla wala njàngale mu sëriñ bi soxla la ñoom téere bi ñu ngi la koy recommandé képp ku ko yër dama ci gis loolu ñu wax dëgg kon ma bàyyi sëriñ Cheikh ma jox kàddu gi sëriñ Cheikh bismillah bu amal ko nag association bi nga xam ne moom association bi sax moom laa ko dee ba nga xam ne moom la ñu ko dee nga xam ne dañoo bari seen bopp ngir bind ngir liggéey seen tubaab muslim bu wax dëgg yàlla waaye am na yenn conférence waaye nag ak présenté ay ay jëlee yoo xam ne dañuy jéem a déglu li ci biir tey donte mu def mu def taw baax na mat cinq cinq pour cent waaye wax naa wax dinaa dem ak ñeneen ñu toll donc li koy def moom dafa loolaa nga dem ci jëriñ bi nga xam ne naa wax daan ko def ko ak seen xamal xarit yi ak xaar ak bàyyi ko inspecteur bi nga loolu jàpp na bu baax ndax daanaka tomb yi ñu ko baax si wala sujet yi yëpp daal ñu ñëw na si ba dugg si yàlla naa lay sax yu xóotal kon nag ñu ñëw rek ñëw bu baax rek wax leen si li nga xam ne moo taxaw na raw téere ñu koy def waxtu bi tisbaar ndax xam naa ne moo am kër bi nga xam bind dana taalif téere bu baax soo am ko tam mooy Sëriñ Tuubaa ba classe am xëy na waa Abdul Xadir ak Cheikh Abdul Xadir nga xam ne benn saal maanaam dañoo seet dina mën mu ngi ñàkk saal bi ñu jël ko ñu koy am conseil ginnaaw yi ñu yaatal ci téere bi Cheikh Abdul Xadir ak Xadir Abdul Xadir ah téere bi comme moom moom ci moom la waxee nga traduire ko ci français ñu koy yëngal ko gisati traduire ko ci anglais tam te traduire ko ci français tam yëngal ko gisati traduire ko ci anglais tam traduire ko ci anglais tam tam yëngal ko gisati li li ma la indi nag mooy jéem a wane Serigne Touba dara yoo xam ci wane gaa yu baax li ci nekk li ci mën a jëriñoo gis nga war na ci am yaa ngi dox ko ay gestion daal di baax yëpp dañoo am doom yoo xam ne sax baax na wax dëgg ñu tamit moom ñu wax ne xattaa bi fas xaw ci fasas bi ma ko ñu yor baax nekk ci li nekk li xese yooyu maa da ci jël ay ay ay gas ñu jël ay leçon di ci mën a jël moo tax dama wax ne dañu wax suñu maa la nekk barko loolu nekk la xese si moo xam daal baax la moo xam sax ñu yaas doon loolu loolu yoon ndax daa leen jël ay xalaat dañ nekk ci nga xam ne ne histoire boobu loo xam ne ah, dañ koy waxtaan boo bànnee ko waaye dañ ko war a jël def ko ay leçon li ñu wooyee la prise de l'histoire muy gën a xam li am ci mën ko dafa am lii li mu am fan la jaar ak lan la def ba tax lii am kon gën a am jaar jaar sëriñ bi waaye yéen a ngi si yéen a teewlu ay wàllu yoo xam ay tànk yoo xam ne ñu jàpp si ne ñu teel la ci misaas sëñ Ba la doon jihaad fi sabilillah ndax jihaad dafa am solo ci islam waaye man la ko defee ku ne xam ne ne sëñ Ba jihaad parce que def dafa teel a am solution rek xam nga ku ne xam ne solution rek déwén jël ay ngànnaay di xeex ndax xam nga li fi nekkoon loolu am na ndox teel a def ak ci taw bi yàq xam nga taw bi taxaw taw bi yëpp xam nga bu bi yàq yàq dañuy soxla waaye dañ ko mën a soxla waaye jumlu yaramu bi la yëngu wa in tuqaa xatta xarina te mu xam ne shaahin kon nga xam ne jëlaat ba mu taxaw ñu jàmm ñu yëkkati ay laata ñu yëkkati baat yàlla yëkkati yëkkati waaye fexe ba aarif yi dañ mën a jàllale ñu ko yëg te kenn mënu ko war a tere kon gis nañu seen tubaab yi ñu ngi am solo am nañu kër bu ñaari njëkk boobu waaye am na ci ay ay ay ci tarbiya muy éducation am na ci ay ay yaar ma am nañ ci façon façon de tarbiya maanaam façon de éducation xam nga ne philosophie ah, yu wóor la ndax ci misaal philosophie pragmatique moo ci wóor philosophie bu diine ñetti déggee bi ñu am xam nga ne philosophie bu suuf suuf ji bi ñu ngi rek falsafa bu philosophie bu salafé bi ñu yëpp gën a jeex andi ay yoon yi nga xam ne pétanque yi nga xam ne yi nga xam ne yoo xam ne tàbbi yoon ñu ngi koy def ñu ngi leen di tàbbi fa waaye tam am na Sëriñ Tuuba moo am ñu ko tàmbalee. am na ci xiyaar bu wax xiyaar bu bu bu bu wërsëg bu wërsëg wërsëg boo ko tëjee ndax ko te moom boo ñu wax ne waaye li nga xam ne si borom ku fu ne moom boo sax ma laa la ndigal ndax li nga xam ne moom daa am mission daa am ay ay ay ay alimenti milliard ci ay pompe mooy li may wooyee ay diggante yoo xam ne boo amee yëpp dugg si xaw ma loolu jot si borom waaye loolu ñëpp rek mën nga ko tënk ndax di leen toog ma am vision bu fari toog ma am ñu bokk di si bëri toog mu am ay qualité ak i man-man ak i xam-xam yoo xam ne moo doon mën a fexe ba influencé ñu àndal ba ñu réaliser vision euh, bi ñu am kon loolu bu xasee am rek wuute nag ñu may ak ñoom ñëpp ci wàllu liggéey bi. moo tax yaa ngi leen di laaj ci kaw ci loolu jaay bi dafa am loo tax mbaa doon liggéey bu rëy liggéey bu efficace ndax fekk nit ki dalal ku baax maanaam ci misaal koo xam ne da ngaa fekk nit ñi. maanaam am na liggéey sax am na liggéey yoo xam ne dimbali leen bu baax ñu am ak ñu ak ñu baax ndax fexe nañ ba dama seen aar seen aar seen seen bopp waaye am na ay liggéey yoo xam ne sax ñu ngi leen di sàggal ñu ngi ay ci leer it laa gën a am nañu ngeen ko waaye ñu ngi baax ak ñu ak ñu ñu xam ci misaal omo laa nga xam ne ci gën ci àdduna bu bu baax la am na am na benn baax wala nga kii tam wala nga am laa waat waaye nag am na euh, mu andi nag kenn tey ñu maa ko am na yoon boo fekk laa bëri ci ay ay na nga dëggal ci mbërëm seetal ci donc waaye ku ku ku ku ku wér ak jaamu xam digg li na ko ah di ko ci ñu ñu ñu fexe ba jubal ci wàllu boobu tuddee ñu ñetti monsieur le maire moom lañ koy misaal ci ñi nga xam ne moom la yaa ngi wax ci alxuraan di wax ne wa ja'alnaa ibraahiima xaliilan xamiidan wa awhaynaa ilayhi fi'lal xayraati wa iqaama salaati wa iitaa'a zakaati wa kaana lana aabidan mu doon njiit kilifa boo xam ne ku ne xam ne amoon na mission bu sori mission bu sori mission bu sori ndax lépp lu koy jàngale ci ay waxam dafa ko xam mbaa ñi nga xam ne ñoo jëkk am na moom ñu am na moom taxoo na taxoo na moom te nekk bi ay waxam ñu jëlee ko ñoom ku ne xam ne suñu tuwaa gis bu sori amoon ci lu ak ci yàlla borom ci lu taatee maanaam borom dëgg-dëgg ay awliya jaamu ja jaamu ji jaamu ji jaamu yàlla bi ci dëgg-dëgg xadim yooyu mu doon ku ñu yëngu yëpp salaa salaam war a xam na loo xam ne ñoo ci yaatu ci tool bi ragal ak jaamu yooyu ñoo ci waat ci tool bi waaye dégg nga ñu yàgg ko doo wax ne ak ñu nekk ci mbéyteem moo mooy doon maanaam am islam bu mat ay iman bu mat كمال الإيمان كمال الإسلام كمال الإحسان تبنينا نقول معرفة الله xam yàlla ndax maa xam naa concept bi ba am ba am solo ci ci ci ci ci tasawuf te maa xam naa kenn kenn mën naa am lu taxaw lu ñuy ñaan lu ñu war a sikk donc wax ne bëgg na ci ku am bëgg na bëgg na am ay yàlla dañoo yàqal gën a am bi kamaalu islam dañoo wax ne bëgg naa am kamaalu ihsan ihsan bëgg na rasul àgg ci yàlla dañoo bëgg na moo am ci biir kamaalu ihsan kon loolu am ci émission la émission la gërëmal yàlla gërëmal yàlla wax ñu gërëmal yàlla waaye wax kon amoon na fi solo waaye yëkkati ñun am na tam mu doxal ba njëkkee diraatu laa wa wa rasuli wa daal aaxira yu tuxoo yàlla yóbbu ak ëllëg ba nga xam ne loolu la danañ mën a àgg si yàlla seen borom xam yàlla waaw ak gërëm yàlla am sawaab ak sawaab al abadiya sawaab daara yi te xëy am naa alaaxira kon bu ñu la waxee ci ñoo ci gis ñaar ci ñoo xam ne ay béy la yoo xam si tubaab yi ak lan yoo xam ne ñoom ñoo wax ñu ne Cheikh Bachir wala Cheikh Mamadou Diop wala ak ñeneen ak ñeneen kon am nañu foofu ñaar am nañu taal yi yan la la mu doon taal yi ñaar la ba tax am nañu ñaar yan la yan jëf yan am nañu ñaar am nañu ñaar ñu la doon ah, tënkee ndax mën na ñàkk ah, li nga bëgg bu soo la am fokk nga fexe ba ñoo topp xam ko kon ay version Euh, ak ak ak tax fi sax euh, loolu mën nañu ko bëgg ba maa ngi ma euh, tax si si ay glace loolu ak loolu bàyyi bu laa wax ak taal bi mu laa bi ak lu mu ko fi woon yooyu ak lu teel bu waaw waaw waaw ba liñ ci bëggoon ñu ñaanal ko ba ñu am ñu di defal ko. tubaab bi tubaab bi dafa laaj kër yi ñu mën nañu waaye bi ak ñu ñu ñu leen war a ñu leen war a bu yàggee ay na seen war a ko waat ndax ñu leen doon sëriñ bi kenn mën na kër doon sëriñ bi kon ñii ñu sëriñ bi ñu ñu bëggee ay na tubaab bi tax ñu indi ko ak ñu ko am yëpp donc ñu gis naa suñu si mbéy ci wéeru Jurbel ba waaye Sëriñ Tuubaa la loolu ñu doon def am na tey bu jaamu maa ngi ko jaamal occasion dafa doon wax occasion boo xam ne waaye man ci bala am dëkk wéer wéer wéer bi lëggee yëpp ak yàlla borom mu def ko liggéey bi liggéey liggéey bi liggéey bi liggéey ci laas la moo am occasion def ko ci liggéey bi jaamu liggéey yàlla borom ak wéer bi man la taas boobu daf ko def ba ba yàlla may ko ko bëggoon lépp si jaamu yàlla gi may ko ñu bëggoon lépp si bëggoon yëpp si aslam ñu am ci lu bari nag loo xam ne moom sëñ Tuubaa mooy moo wax na ko wax ne yàlla moo ko may yàlla moo ko may ci boppam ak loo xam ne yàlla defal na ko temps bi ñu topp ko bi nga xam ne ko topp ci imaan ak islam ak ihsaan ndax moom boo ko waxee boo ko waxee ci yooyu lay lay lay lay lay jiitee lay jiitee ñu ko toog amoon bil imaani wal ihsaani bi wal islaami wa xayri ihsaani sa istislaami لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وأعوذ الله ونفعنا إنك لا أعوذ بالله الإسلام سيدنا may naa tëj xanaa kon man damay daanaka damay tëj rek sax waaye jeex na waaw waaw mën naa tëj ok waaw kon mbokk yi kon damay kon xam naa damay tëj rek ndax daanaka li ci ëpp li li daanaka rek la wane wane wane si tuuti rek li ci nekk rek moo doon kon dañuy wax ni rek daanaka loolu mooy li ëpp solo si li ñu bëggoon a wax bu yàgg ko nag ñu taalif téere ba noppi nag gis nañ ne am na ay école ak daara yoo xam ne tàmm nañ di ko jaayee moo tax ñu génn waat ci téere bi di as asiraayu bi ñu fi ci yëpp xarit Bachir nga xam ne moom si li bàyyi ko moom nag moom man yàlla ci arab moom boo xam ne dañ ci li ci li ci li ci dañ dañ dañ ay ay ay ay ay waxaat ndax ndax sa euh, bu ñu nekk nii soo bu nekk am na baalu joxee dañ koy leeral moom bu ci jógee def ci euh, ab tënk moom ñu apprécié bi xulaasa bu ñu noppee du andi ci ay ay ay tamaara bi exercice ngir ngir nga xam ne ku xam da nga mën a xam dañuy tënk bi ah bu ñu jógee nag nag ñu génn waat ci biitam muy àll ba fi seeti fi seeti xadim àll ba fi seeti xadim alxuraan ah, boobu tamit nga xam ne moom itam ci lañ ko génne waaye dañ cee dolli du du ci moom waaye dañ cee dolli yeneen nag doon ca ihkam yoo xam ne ma baax si ma ma baax yu bari moo ci nekk ma baax bu ci nekk ñu dolli ci doon ne da dafay mel ne day tënk li ci li ci li ci li ci li ci kon xam naa ni dañuy ñëpp rek sant ñëpp di ñaan yàlla moom la suñu liggéey doon ñu taw te àggale ko ni ñu ko lépp à ànd te da am tënk ngeen koy ngërëm yàlla mooy ñun waa gërëm seen toile ci liggéey yàlla ñu saxal ñu ay rajo saxal. waaw kay jërëjëf sëñ Cheikh. moom daal xam nga ko waxee. incha allah dinaa leen wax kii bi incha allah dinaa après Ndiaye nga kii nga ni la si waaw balaa nga jël. parce que li nga xam ne moo ci njàngale Sëriñ Tuubaa li gën a li ci ëpp solo mooy njàngaleem sëriñ bi ni mu daan tarbiya dongo yi ñëwaat na tam ci liñ tuddee leadership booy joxe sax ci ay ay misaal leader leader yoo xam ne yi la la ñuy fa jëmee doomu aadama yi gënut sax waxe la joxe la ci ay exemple waaye kon ñu jàng ci ni leadership sëriñ bi moom moom li lay jëme fi gën maanaam ku ci doomu aadama bi mooy jëmale ci ragal yàlla ñu ngi ci am ngërëmal suñu borom euh, comme ni ma ko waxee rek téere ngi daal boo xam ne bi boo xam ne bii boo ko xoolee ci biir sëñ bi indi indiwaat la ko ci mbindum sëñ bi lay tàmbalee ci référence yi gën a wóor ci lislaam mooy alquraanul karim ak hadis am na téere yi nga xam ne lu mel ni irwaa irwaa um nadim sëñ Mamadou Lamine Diop la nga mi ne nu baaxil xel yi bu sëriñ Basiru Mbàkke maamam yooyu yëpp euh, sëriñ bi indi na ko indi la it fàttaliwaat la it ni si li bi nekkee manuel scolaire waxoon naa ko sànq ci sama njaal beelu wax euh, tam la ni bi fàttaliwaat na ni sëriñ Cheikh Mbàkke pour pour sëriñ Cheikh làkk aw làkk du du du aw sàkket du barrière li ñuy wax barrière linguistique amul sëriñ Cheikh moom ci arab lay bind waaye li mu bind ci boo ko xoolee ci français fekk ko ca boo ko xoolee ci anglais fekk ko ca boo ko xoolee ci yeneen làkk waaw mu ngo mu ngi fàttali téere bu mujj bi nga xam ne mooy traduction mooy reprise bu kii bi këru këru këru boppam bu édition bu ñuy moolee moo ko indi muy E2K édition xadima Xidmatul Xadim kon daal li ci des mooy ñaanal sëñ Cheikh Mbacke bi yàlla kattanal ko dooleel ko ba fi mu yéenee yóbbu xam-xam ci liggéeyu maamam bi yàlla may ko ko ba mën ko def te jàng ko moom ci ginnaaw nag wéy juróom bi Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké nga xam ne lu ñu nopp di ko ñaanal yàlla may ko wér ak kattan kon xam naa suñu amul lu waaw waaw kon waaw kon nag nañ mën a waaw sëñ Sam toog ci barab bu jóg fii si wàllu ci ñaari

bokk na ci ñi nekk ci bopp bi ca nekk googu mu nekk ci bopp bi lu bari waral ko bokk na ci ab taxawaayam ci wàll gi muy bind mu nekk bindkat waaye ñuy nuyu bu baax baax ñi mu àndal liggéey bi tàmbale ko suñu wëllëri suñu xarit sëriñ Babacar Xumma yaakaar naa yàgg nañ lool ànd ci liggéeyu sëriñ bi naa ne dëpp ñu def colloque 2011 mu nekkoon ci secrétariat bi liggéey ci liggéey bu am solo ba léegi ñuy ànd ci liggéey bi nga xam ne mooy liggéey suñu waaye ñu fekk fii it keneen koo xam ne moom suñu wëllëre wu yàgg yàgg suñu xarit suñu mbokk muy docteur Mortala Cissé kon ñu koy jagleel ab nuyoo euh, sëriñ inspecteur moom du ma ko nuyu ndax ñoo bokk ñoo bokk euh, liggéey bokk jotaay euh, mu nekk ci liggéey bi kon moom daanaka su ma fu teewal man na fee teewaale waaw waaye ma teew fi nag ci turu Serigne Ahmad Badawi mu Cheikh Mahamadou bi nga xam ne moo jiite Rawdu Rayaahiin te liggéey bi ngeen teel cee jokkoog moom mu bég ci lool def jàppe ko ab liggéeyam ndax bu ñuy wax euh, tasaare mbindum sëriñ bi tasaare njàngalem sëriñ bi ak li ñu bind ci sëriñ bi loolu moom mooy mission Rawdu Rayaahiin moom la ko sëriñ bi dénk ci lay xëy ci gont kon képp koo xam ne yaa ngi ci yëngu moom nga ci nekkal rawatina ngeen ànd koog ñoo xam ne ñu nag ñoom benn lañ muy muqaddamatul xidma dañu ñëpp ay ndawi sëriñ bi lañ yu koy liggéeyal ci wàllu xam-xam ci yoon wi kon nag jotaay bi ñu ngi am mbégte ci teew ji teewal fi rawdu rayaahiin gépp di sant ñëpp di gërëm ñëpp ci liggéey bi di ko rafetlu lool xam ne jàpp nañ ne tàmbali la boo xam ne bu wéy lay doon ndax njariñ li mu ëmb dafa bari ndax ñiy bind ci sëriñ bi dafa bari lool te mu mel ne ñi daan bind ci sëriñ bi ci nekk ci biti nga xam ne ay tubaab yuy jàngat sëriñ bi wala ay naar yuy jéem a jàngat sëriñ bi ñooñu lañu daan gën a fésal ci li nga xam ne moom la ñi yaroo ci keppaaru sëriñ bi bind te jàpp naa ne loolu la war a prioriser moom la ñu war a jiital ndax mbir mi ki ko dund xam ko kooku moo ko war a mën a gi gën a gën a génne war ko gën a xamle ñu bare ñoom dañoo am seeni école seeni euh, théorie am seeni gisin ci biir gisin yooyu ñu ci jéem a jàng sëriñ bi waaye ñi xam ne ñoo yaroo ci keppaaru sëriñ nga xam lu ñuy bind lu ne seen vécu da cay bokk ñoom jàpp naa ne fésal seenub liggéey jot na sëkk sëkk sëkk te ñu ci jamono joo xam ne jamonoy communication la jamonoy xam-xam la ci lu ñuy produire ci yoon yi ci at yi jàpp naa ne néew na ci ab communauté boo xam ne ñu ngi produire lu tolloo kon nag jot na sëkk ñuy am activité yu mel nii ngir loolu mën caa génn kon waxtu bi moo xat moo xam ne ñu tënk foofu kàddu yi te ñaan suñu borom mu nekk mu baarakoon ibtidaa maymunal intihaar wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi baax sëñ Maxtaar moom it di rafetlu taxawaayam sëñ Cheikh it di ko ndokkeel ci liggéey bi ci lii mu fi gaaral te ñaan yàlla li mu ciy séentu ci barke ak njariñ suñ borom def ci lu kawe jort wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ci fukki fan yi day wéy fukki fan yaa juróom-ñaar muy ëllëg ba ci fukki fan yaa juróom-ñaar si biir màgg bisu màggal gi day wéy dina fi am ay gaaral ay téere dina fi am ay waxtaan ci ay thème ak ay noor yoo yoo xam ne day soxal sëriñ bi ak islam te ni ñu ko waxee woon Muxaddamatul Xidma ak Rawdu Rayaahiin ak Afrique association des écrivains de la Mouridiyya seq ko ci barab bi fii ci jumaa ji wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh barke kon jërë ngeen jëf xam naa kon euh, bu sa xeet jógee dina wëral euh, stand exposition bi euh, su ko defee ñu dem joxe julli ji dellu siwaat ci jotaay bi mbokk yi ñuy toppit fu ñu mën di nekk barab bi dañ ko ubbi mbooloo mi mën nañu ñëw visiter xool li fi nekk ñu leeral leen ko ndax loolu moo waral jotaay bi waaw gën a yaatal moo waral jotaay bi ndax bindkat yi moom li leen war a def nañ ko euh, kon li ci des mooy public bi euh, mën nañu ñëw bu ñu ñëwee fii ci jumaa yi Touba ci diggante euh, kër sëriñ Serigne lu Mbacké ak bunt bi jàkkaarloo moom ci biir jumaa ji foofu la exposition bi nekk kon ñuy xamal mbooloo mi ni fu ñu mën di nekk rek barab bi dañ ko ubbi di sant Serigne Cheikh bu baax ndax wax dëgg yàlla bu ñu xoolee tolluwaayu fan yi nii mu tëj këram ñëw ci yu mel nii loolu lu cher la yombut ndax wàccuwaayam ak ku xam këram ak ak ak ak la fay wàcc ci ay gan ak tolluwaayam yooyu yëpp su ko bàyyee ñëw ci lu mel nii wax dëgg yàlla dañuy xam ni eh, ku jara sant la eh, doonte nag warteefam la waaye nag mën naa nekk warteefam te du ko warloo kon leen nekk warteefam pare mu warloo ko kon moom mii ñu xam ni eh, li muy wax ci téere bi royteef la ci loolu kon sëñ bi ñu ngi lay sant baax di di la xam ne mbégte nga ñu ngi lay ñaan baax nga yàgg fii te yàgg ngi suñu kanam liggéey bi nga defee suñu borom barkeelal ko ndax xam na ni yaa ngi indi ay innovation yu am solo ci bind ci yoonu murid ñu ngi lay jaajëfal baax di sant inspecteur Lo inspecteur Serigne Samb Bousso ak mboolem mbokk yi nga xam ne teew nañ ci jotaay bi kon sëñ bi day jóg rek visité su ko defee ñu daal di julli ñëw ñëwaat ci jotaay bi jërë ngeen jëf.